Amar Gadou depuis 15 heures et ça du festal. Issa Issa ñëpp def benn bopp ci ginnaaw tey bi nga dugg see ci instant bii lan nga yëg sa xol ak lan nga wax li nga xam yëpp dañu tege Amar ba yaa ngi am pour l'instant. waaw. déglu déglu. di sant seen taxaw di sant seen ak. di sant seen ak di sant seen seexu naar Mbàkke bu baax maa ngi koy ziar borom daaru waaw sa seexu maa ngi koy ziar sant di ko gërëm di gërëm nag di gërëm njabootu sëriñ sant bu baax a baax di sant waa Laayeen yi waa Yoof xam na waa Kàmbour maa ngi ziar bu baax a baax di ziar Sénégal bi yëpp rawatina waa Pikine xam na di gërëm sama baax waa Waawan Jaral samedi waa Guinée waa CHMP waa Yolbakunda waa Ponka Fuladu yëpp Fuladu yëpp kuy Fuladu rek maa ngi woo di la sant di sant sama sama mbokk yaay léegi nii maa ngi sant waa Minna waa Pikine dama leen sant bu baax a baax a baax a baax waa Pikine aw ma seen fay parce que gis naa boobu ba ma seen weer ba léegi lépp koo xam ni na Pikine rek yaa ngi tax sama tableau am si man confiance doyloo ma yaakaar maa leen ñaan yàlla bu yaakaar tas maa leen sant bu baax a baax di gërëm nag suñu président Modou maa koy sant bu baax di bu baax a baax a baax mobilisation bi ama nañ la ni Pikine sas nañ la Pikine yaakaar nañ la Pikine koo wax da lay wax rek ndam xam ne dañu am yaakaar ci sëll bi nga xam ne tey nekkatul sëll. waaw damay may tuuti ma gërëm ku mel ni Lamine Naar borom États-Unis maa gërëm bu baax a baax xam naa di gërëm. waaw maa ngi koy sant di ko ah, sant bu baax a baax di ko gërëm Abdoulaye Sylla gis naa ma taxawoo bu baax a baax maa ngi koy sant bu baax. Modou Gueye di gërëm euh, Modou Fall. Mour Fall président Pikine gis naa mu taxaw bu baax ba maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm képp ku ma jàppale Issa maire de la ville de Pikine du ma gërëm sama mag sama xarit Ibrahima Diop maa ngi koy sant bu baax a baax xëy na nag gis naa mu taxaw bu baax Ibrahima Diop maa ngi koy ñaanal yàlla ko suñu borom defal yàlla ko yàlla defal jàmm alors léegi Ama ñu bari dañ doon rek ndax Ama mi ngi ci tey dafa mel ni ànd ak xel mu dal ak fit bu dal ak li nga xam ne mooy yaakaar bi mag fekk. waaw lan lu may dal waa xelu Pikine mooy ndam man Amadou Baldé doomu Falaye Baldé ma maa si des. ma sax bu ma wax dara ma maa si des te dama ne la bis boobu yomb na góor xam nga góor lu mu dem mu yomb si moom bis boobu yomb na góor yàlla góor yàlla laa te dama koy jëlee bu nekk yàlla la. waaw équipe bi yëpp dañoo def def di ko mais avant pourquoi mel bi waaw xam dama gis roi des arènes ñu ma jël ñëpp benn un an lay def benn kii xam naa dégradé bu ñu doon dégradé mooy cat xam nga loolu roi des arènes cat lay taxaw moo tax ma waxu day bu ñu baax su ma wax su ma ñu gis ni Sénégal yi li ëpp ci Sénégal yi dañ ne combat bi bu yàggee arrangé wul Ama Baldé ak physiquement loolu naka nga ko préparé ak dara damaa tëdd nelaw rek waaw bu bis ba luy ndam indi waa Pikine damaa tëdd nelaw boo ko bëgg. alors Ama li nga xam ne moom la ñaari champion yu am njàqale ci wàllu euh, violence ak lu ni mel ban appel ngay lancé ci côté boobu. yéen a digaale bu ñu tëjee barrière yi yéen ñaar dama ne ambiance rek moo bëri waaye man ñu ma support ñu topp sama ginnaaw xam nañ man maay kan toujours wax pontu xeer bu so bu jub moom li ma yóbbu yàq na moom laa leen jël ñoom laa am sànni xeer képp ku am serwaat bi wala def yoraat baalu ma leen ko man man man man la man la ñaar bi ma doyoon ñu toog xaar dama ne bis boobu yow koy jëli ñu bàyyi la nga delluwaat ci entraînement yi parce que yaakaar naa ne fii boobu nit dootu la gis ak papa yi ngay nekk waaw damay sant yàlla di sant nag di sant sama àndandoo yi di sant sama àndandoo yi bu baax Lamine balaa mu doon tëj bëggoon nañ xam bu baax ndax dina fital jaar wuti Modou Lo loolu ñëpp a koy laaj ndax dina bàyyi xaaral ba dimanche sama àndandoo yi bàyyiwul ma mel ni Malo su mel ni Tafa Aram Da Baspa de Gaynde xam na Buuba ah Maodo Deuz ma Tombo waaw xam nañ bu baax a baax Kër Sër Abdourahmane Ibrahima maa ngi gërëm Del maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm di gërëm bu baax a baax waa Assane waa Sène waa Kolda xam di gërëm waa Kolda di gërëm ñëpp waa Sène xam na moo tax duñ gaara maa ngi koy bàyyi lépp di ko ñaanal yàlla ko suñu borom jàmm di gërëm nag Iran bu baax a baax kon ni ma la waxee waa Bour waa Bour waa Mbour waaw maa leen di gërëm waa Mbour bu baax a baax maa leen di gërëm waaye sant yàlla bu baax a baax di gërëm bu baax a baax yàlla na ko suñu borom defal jàmm